asalaamaaleykum internetu melokaan TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sargal Mor nag ñu ngi fi nga xam ne moo di rond point HLM en face EMG automobile bi ak benn accident bu doy waar nag moo fi am benn tata benn tata moo doon doublé bar bërëngu am na ci nag ñu baree bari ñoo xam ne ay blessé lañ am na benn moor benn moor bi mu am nag malheureusement jigéen la mais am na ci ay ay ay nit ñoo xam ne instant bi évacué nañ leen parce que dañoo am ay blessé yu garaaw a garaaw léegi nag moor dañuy daal dem xool situation bi naka la demee ak accident bi lan moo ko sooxe ak bis bi tey lan la doon def ba affaire bi mel nii ñu dem ñu jël ci ay témoignages ñenn ñoo xamante ne nii fi la leen affaire bi fekk ñi nga xam ne tey ñoom ñoo waroon saytu wàllum wér-gi-yaram gi waa sapeur pompier ñëpp ñëw nañ instant bi euh, commandant bi na déclaration et tout léegi ñu dem ñu waxtaan ak euh, ñi nga xam ne ñoo fekk accident bi naka la demee. am tuuti nañ wax dëgg bi rek te yàlla tax xam mooy dëgg bi man deux fois bii ñuy xëccoo biir maris fees dell tali bi ñuy xëccoo ñoom ñaar di njëkkante fees dell romb sinon sa kaw la ñuy jaar dem te du leen mujj fenn ay xale yu ndaw yoo xam ne ay 23 ans 18 ans la am loolu moo nekkul yoon fi ñuy jógee ñoo war a xool kii départ nañ ko may 30 minutes fekk kii mais ñaar ñaar ñuy wut client nga bàyyi ndoo leen même pas 10 minutes du yoon nit ñi dañu war am xel mais léegi nit ñi comme ay nag comme ay nag nag sax ñoo leen ëpp xel te loolu du yoon ñaari bus yu xëccoo fees dellu tali bi li du yoon ba pare ñu waxoon affaire batalo joolaa bi yeewoon ñu léegi bus boo ci duggee plus de cinquante personnes ñu ngi taxaw loolu mooy lan loolu dafa ëpp calque rek peut-être cuune si calcul mental wax doon cinquantaine de mesures cinquantaine de mesures yooyu normalement c'est entre ba 2024 donc est-ce que on a sérieusement évalué mhm. dañoo war a toog ñuy évaluer impact bi impact mesures yooyu noonu mhm. est-ce que ça a fait l'effet escompté waxoon nañ ci porte bagage du amati mhm. yaa ngi dox di donc ñun. et puis waxoon nañ Versailles du am te gis nga bis bi renversé wu. amon na Versailles. non au bis bi sax Ndiaga Ndiaye yaa ngi Versailles euh, bis de inter inter inter urbain ñoo ngi vers ñoo ngi Versailles et cetera donc ñun on a un sérieux problème d'évaluation on prend des mesures mu donne effet de mode quelques jours 3 jours 4 jours au maximum une semaine après on passe à autre chose. et liñuy wax parce que dañuy dem ci émotion lañuy ñuy en fait. donc nak loolu dafa wara a euh on a un nouveau régime qui est là euh dañ leen di ñaan di leen ñaax que bu mu doonati effet de mode. quoi euh, ça euh, waxuñu accident du du am quoi mais fréquence yi dafa bëri dafa bëri quoi te dafa te benn bakkan bu lu ma wax rek benn bakkan bu ñàkk rek njabootam ñàkk na Sénégal ñàkk na koñam ñàkk na tout ça mais c'est des millions et des millions en investissement yu yu perte donc euh, il est il plus que urgent que maanaam tous les acteurs muy ñun ñu si yéeg muy dawalkat yi muy ñu ñu jox ñu ŋànk secteur transport bi ñun ñëpp ñu toog waxante dëgg quoi waxtaan wax dëgg si la bokk mais ñu waxante dëgg dans respect mutuel comme ça ñu trouver des choses yoo xamante ne dina am moindre impact. Euh, tata bi ni mu mel ni mu mboxoñoo da jàpp ni sax camion moo ko camion ko laal dangay jàpp ni oto ndaraan moo mbëkk moo mbëkk oto bi. parce que dafa daanu ba jaaxaan ak pono yi mais doy na waar doy parce que ah, sans problème mooy ban alir la doon daw ak nima ma fi nimi amé bousson nan la fi auto meuna a ba meuna am ci jutal ni xawna jaxal jaaxal sama bopp tuuti parce que su doon sax ci autoroute wala fo xam sax di nga daw pour meuna am yenn alir mais fi pour nga daw fi yenn alir yi fay xaw compliqué ak heure bi ku ne xam ne fii mel bousson lay doon mais dal doy na le fait que ndax jotul euh, ñu daal xolaat bis yi parce que li li mel ni dal dafa bari torop waaw bari na ta ba euh, toujours transport loolu lay jooy parce que bëri na ci oto yoo xam ne tey bu ñuy weng di daanu weng rek daano parce que euh, nanu xoolaat et puis tam li nga xam ne mooy visite technique yi parce que am na ci oto yoo xam ne tey bu la robee da naan kii na la def ba am visite technique nan la def ba am visite technique léeg nga jiit leeg ma jiit leeg oto di daw oto nekk sama kanam mais dama naan est-ce que kii am na visite mu leer na sa xel li mu nat xam nga ni kii bu dee daa passé visite technique normal war waru koo am mais mi ngi daw nan la def ba am technique loolu tam war nañ cee taxaw waaw waaw waaw waaw bu fekkee nag euh, permis yomb na mhm. oto bi du jaarul visite technique normal pour yu mel nii am mais daanu bu bizarre bii mhm. ak fii ni muy amee bouson daal man xaw na jaxasam bopp bi ñu ngi ñaanal daal ñi ci loru mhm. euh, yàlla may leen wér parce que li boo xolé nak jaru sax ñu naan la blessé yi metti na boo xolé rek xamné c'est l'image qui parle yalla yalla jëlé fi li tan xolaat walu transport bi mu nekk kàddu gu am am solo go xamné euh, mom la Fadel suñu suñu naataango bobu wax muy Fadel Dakar Buzz mu daal mu daal di euh, ngeen li nga xamné euh, tay mom la mom la wax mu nekk momit kenn ko xamantene ni chroniqueur la nekk tamit nit bo xamantene ni dañuy bayyi bu baax baax kadam Mor mu melni ni ngeen li nga xamantene ni mom la ko gaay ñaawlo ni ñu ko euh, ni ñu ko yëgee noonu mu nekk lu méttee méttee métti euh, bis yi nag il est grand temps ñu jéem a xoolaat bu baax a baax a baax a baax euh, seen doxalin ak ak ñi nga xamante ne ni liggéey bi noonu lay demee ndax munoo yab ay bakkan plus de 37 bakkan wala lu ko topp non seulement yow say place bu feesee rek nga jël ay nit daal leen di taxawal ba pare doo daw ndànk doo dal. di njëkkante du leen ko dugg ci daanaka day xaw a doy waar mi ngi noonu daal ah, doy na waar loolu daal moo am fi nga xam ne moo di rond point HLM bi euh, ci EMG euh, e automobile bi. Euh, mi ngi noonu yéen ñi ñu doon seetaan ci seen site bi nga xam ne moom moo di Melokaan TV lii lañ leen jëlaloon fii ci rond point EMG automobile choc bu méttee métti la ñu fi nemmeeku alors jël nañ jët ñenn ci ñi nga xam ne ñoo fekkee choc bi ñoom nee nañ problème indiscipliné la parce que nag tali mënoo nekk ci di dawal yëpp ay bakkan di dawale lu la neex am na ci tamit ñoo xam ne déclaré nañ ñeneen permis yi niñ koy joxe moo yomb donc il te faut rupture bu bees bi wala nguur ni moom moo fi toogaat mu taxaw jublu ci transporteur bi eh, pour ñu mën a taxaw askan bi saytu leen bu baax a baax ba accident yu mel nii di faral di am jaajëfal naa leen kullukum ak képp koo xam yaa ngi doon topp ci Melokaan TV merci beaucoup